waaleykum mbokk yi fii ma nekk mooy le fleuve Sénégal waaye maa ngi fii ci Bakel te ku wax Bakel wax fleuve Sénégal nga wax intégration régionale wax duggante boo xam ni réewu Sénégal duggante na ko ak réewu Afrique yi ndax Mauritanie moo nekk fii sama ginnaaw waaye boo jaaree ne la lële ngay séen ñoo ngi déjà ci Mali pour won la ni Sénégal mënul dem te àndul ak yeneen réewu CEDEAO yi moo tax dinañu def yitte bu baree baree bari ak pexe yu bari pour ñu renforcer l'intégration régionale ci biir CEDEAO libre circulation des marchandises et des personnes mu nekk une réalité parlement CEDEAO am na dinañ ko gën a kàttanal waaye fi nga xam ne dinañ fa gën a def doole itam mooy li ñuy wax la véritable intégration des peuples parce que intégration bi ba léegi lu ci bëri dangay dégg ñu naan ay le club des chefs d'État wala ñooñu ñooy jël ay décisions ci ñëpp mais intégration nit ñi la parce que fii Bakel ak population yi nekk Mauritanie ak ñee nekk Mali ñëpp mbokk lañu benn lañu intégration des peuples nag mooy ñu fexe ba ñooñu am brassage culturel di demante ak di dikk ñu am lu ñuy wax le développement solidaire et le co-développement ñëpp ànd di di ko kenn du dem bàyyi sa morom ndax li tax intégration am solo mbokk yi mooy Sénégal li muy defar ci suñuy usine li ci ëpp ñu ngi koy jaayi Mali Mali mooy suñu partenaire commercial bi gën a mag moo ëpp sax li ñuy jaayi bitim réew ay France ak yeneen kooku mënuloo ko caaxaane boo jëlee corridor Dakar Bamako lu ëpp junniy camion bis bu nekk dina ci jaar jëli ay marchandises port di ko yóbbul Mali waaye mu jël itam ay marchandises ci suñu ay usines yiy defar ay bouillon de culture ay lait ak yeneen di ko yóbbu di ko jaayi Mali di ko jaayi Burkina Faso ak Guinée. ñooñu bu ñu ko defaree ba yoon yi baax libre circulation bi baax procédure de passage aux frontières yi ci douane yi mu yomb jigéen ñi dinañ ci gis seen bopp bu baax a baax ndax ñoom ñooy def commerce transfrontalier informel. entreprise yi dinañ ci gis seen doole parce que ñoom ñooy recruter ay nit yaatal seen marché kuy jaayi Afrique sowu jant 400 millions de consommateurs. bis bu ñu demee ci li ñuy wax la zone de libre échange continentale ZLECAf bi nga xam ne Afrique koy bokk mu ëpp 1 milliard 200 millions d' habitants bu boobaa marché bi ngay am kenn xamul lu muy toll kon ay grande entreprise sénégalaise yu sénégalais yi moom ñoom ñoo fiy nekk ñu fexe ba sénégalais yi nekk ay champion industriel Sénégal am na lépp pour développer dara manqué wu fi li fi manqué woon mooy ay njiit yu baax yu yërëm askan wi yu responsable ngir ñëw nit ñu baax ñii di liggéey di sonn xam seen i jafe xam seen i coono ñëw jàppale leen pour que ñoom itam ñu développé wu. loolu mooy yéene bi nga xam ne am nañ ci Sénégal te incha allah bu ñu ci yeggee ba ngeen fal projet bi au soir du 24 mars 2024 bii ñu jëm. lépp lu ngeen amoon ci yaakaar ci intégration suqaliku ak brassage culturel dinañ ko indi Sénégal ànd ak ay voisins yëpp mu am une diplomatie de proximité ñëpp ànd développé wu ci jàmm nag sécurité bi ñu renforcer ko mbiru terrorisme yi ngay dégg ñu ànd ñun ñëpp xeexandoo ko. bisu vote bi na ngeen teel a jóg mobiliser voté bu ngeen paree. na ngeen sécuriser vote bi parce que le premier tour la ñu bëgg a tëj lépp mu jeex ñu daan dem si ñoom asalaamaaleykum merci beaucoup.